اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور صابراً في- بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف حفظه الله باب المياه وفيه ضابط واحد أقسام المياه ثلاثة أولا طهور وهو الباقي على خلقته ثانيا طاهر وهو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه ثالثا نجس وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه باب الآنية وفيه خمسة ضوابط الضابط الأول يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة الضابط الثاني آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة الضابط الثالث عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر الضابط الرابع جميع جلود الميتات تطهر باتباع إلا الكلب والخنزير الضابط الخامس يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله وذكر اسم الله عليها عند النوم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ñu fas yéene tàmbali bi idnillah benn téere boo xam ne ci al muxtasaraatul fiqhiya la bokk maanaam téere fiq buñ gàttal la xam ngeen ne téere yiñ taalif ci fiq daf ci am yoo xam ne yu gàtt la yoo xam ne ay masala lay indi waaye ay dalil sax ay xadiis ak ay alxuraan ak yooyu yëpp du ci ne waaye dañuy tànn masalay fiq yi ci boppam jàng ko noonu su ko defee kiy jàng dana mën a xam masala yu bare bare bari ci fiq su fekkee nag da ko jànge ci anam goo xam ne dafay ànd ak la ca gën a dëgër ci masala bi ñu waxaale ko ca day génn ci masala boobu fekk am na ca xam-xam su jógee ci téere bu gàtt boobu bu seqee beneen jéego ci beneen téere boo xam ne dafa ànd ak ay aaya alxuraan ak i xadiis ak i dalil loolu day daal di yomb ci moom xam naa loolu moo tax boroom téere bi tudde ko bidaayatul mutafaqih maanaam kiy jàng fiq daal foo xam ne mën na faa tàmbalee maanaam téere bi mën na cee tàmbalee njàngum fiqam mu jël nag téere bu ñuy wax manaaru sabil muy téere fiq boo xam ne ki ko taalif ibnu duwayaan ci ngirum imaam ahmad ibnu hanbal ci la nekk waaye mu doon téere boo xam ne niñ ko taalife dafa nuróog niñ taalife buluuxul maraam ak niñ taalife al umda ndax dafa teg ay bunt indi ay xadiis ci bunt booba boroom manaaru sabil nim tërale ay buntam ci ab téereem boroom téere bii di bidaayatul mutafaqih noonu la tëre ay buntam wax na ko it ci muqaddimaam wane ne téere bi dama ko teg ci bunti manaaru sabil ngir ki ko jàng ba jeexal ko suy jàng manaaru sabil daf koy yomb kon loolu la ci jublu day mel ne téere bi daal kon mooy masala yi waaye manaaru sabil mooy dalil yi soo leen boole ñoom ñaar ki mooy bunt bi kee mooy biir néeg bi téere bi nag ki ko bind mooy Wahid Abdusalaam Baali taalobe bu jàng xam-xam la góor-góorlu ci itam bu baax a baax a baax xëy na bokkul ci mag ñi naan kibaarul ulama boroom xam-xam yu mag yi waaye doy na ko ne lim jàng dégg na ko fexe na ba liggéey ci muxtasaram boo xam ne mënees na ko jàng ci xalqa kon foofu la téere bi toll xëy na nag moom ñu bari ci ñi xam turam dafa gën a siiwe ci mocc ak di taalif ay téere yu jëm ci wàllum wàcc ak yu mel noonu waaye teewul nag ndongalu jàng xam-xam la loo xam ne it góorgóorlu na ci bu baax a baax donte lu ëpp ci xam-xamam da ko jàng ci ay xalaqaatam gis naa ci biographie muy tarjamaam wax ne bokk na ci borom xam-xam yi nga xam ne jàng na ci ñoom cheikh Abdul Aziz bin Baas ak cheikh Mohammed ibn Usaymin ak cheikh Mohammed Nasir din al Albani ak cheikh Abdullah ibn Jibrin ñooñu laa shakk ne ay boromi xam-xam lañ yoo xam ne ku jàngee ci ñoom su fekkee ne sam jàng góorgóorlu nga ca tuuti rek li nga jàng danga ko dégg ala kulli xaal téere bi moom téere buñ gàttal lool lool lool la manhaj bin ci bëgg a jëfandikoo it mooy topp masala yi ni mu ko tëre benn bu ci nekk ñu jàng ko leeral ko jiyam benn bu ci nekkit la ci gën a dëgër ñu waxaale ko ca incha allah ndax ku jóge ci téere bi boo demee ci beneen téere ci wàllu fiq da nga ci daal di gis loo xam ne luy yomb lay doon ci yow incha allah téere bi gannaaw boo xam ne def na muqaddima mi ngi tàmbalee ci baabul miyaahi baabul miyaah mooy buntub ndox yi almiyaah mooy jamu maa maanaam pluriel la ci maa moo tax mu ne miyaah buntub ndox yi kon da nga ci daal di dégg ne ndox yi du mennum ndox waaye ay ndox moo am moo tax daabit bi mu njëkk andi mu ne wa fiihi daabitun waaxid bunt bu mu dugg bu nekk da koy wutal ay régal régal numéro un numéro deux numéro trois noonu la koy jàngalee fii nag benn régal rek moo ci ne mooy aqsaamul miyaahi salaasa aqsaamul miyaahi salaasa kooku mooy régal bi xamal ne daal ndox ci boppam ñetti xaaj la am ñetti xaaj ci ban anam moo di kenn ku nekk xam na ne jullit bi ndox dafa doon lu am solo ci moom luy dund lu ne sax ndox dafa am solo ci moom ndax borom bi tabaraka wa taala ne ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy luy dund lu nekk ci ndox lay dund waaye jullit bi ndox daf koo amal beneen njariñ mu bokkul ak dundu dundug yaram gi rek moo di jaamu yàllaam yu ci bari dafa aju ci ndox su bëggee julli benn faaw mu jàpp wala mu sangu yooyu da koy war suy aj dana fa fekk aajo wagum ko aajo ki dugg ci lislaam sax dana fekk ne aajo woon a ndox kon jullit bi daal ndox dafa ànd ak moom ci ak dundam ci njàpp ma ak ci cangaay ya lu bokkut ak soxla gi mu koy soxla di ko naan comme doomu aadama kon soxla woon a mu xam atteb ndox man ndox la sañu jëfandikoo ci am njàppam ak cangaayam ak man ndox la sañu te jëfandikoo moo tax mu ne la xaaji ndox yi ñett la kon ci daganu jëfandikoo gi ak ñàkk daganu jëfandikoo gi ma ci jëkk moo di tahuurun buñ ne almaau tahuur mooy ndox mi nga xam ne na ko yàlla binde noona la mel dara soppikuw ca na ko yàlla binde noonu la mel buñ ne ndox it amul weneen tur wuñ cay dolli wudul ndox moo tax boroom xam-xam fiq yi ñu koy tudde almaul mutlaq nga xam ne tuuru ndox rek la yor amul tuuru leneen ndox moomu nag mën naa wàcce ci asamaan si wanzalna min as-samaa'i maa'an tahuura la boroom bi tabaaraka wa ta'aala wàcce nañ ci asamaan si ndox mu laab tahuur buñ ko waxee mooy moo xam ne laab na ci boppam waaye mën naa laabal keneen loolu mooy tahuur maanaam ndox mu laab la waaye yemul ci ne dafa laab waaye day laabal mën naa wàcce ci asamaan si mën naa jóge ci géej mën naa jóge ci dex mën naa jóge ci teen mën naa jóge ci sayaan kon daal ci gàttal day wàcce ci kaw asamaan si wala mu génne ci biir suuf si bu mu ci mën a doon rek ndox moomu taxuur lañ koy tudde kon ndox mu laab la moo xam ne mën nga caa jàpp mën nga caa sangu boo noppee dem julli ji dafa naa loolu leer na moo tax mu ne wa huwa moom ndox moom yi albaaqi mooy ma des ala xilqatihi ca na ko yàlla binde mooy ndox mi nga xam ne na ko yàlla binde woon rek noonu la des ñaareel bi moo di taahirun taahir nag buñ ko waxee lenn ci boroom xam-xam yi dañ koy définir ñiy wax ne mooy mi nga xam ne laab na moom ci boppam waaye munta laabal waaye loolu nag wax la joo xam ne laysa ala itlaaqihi maanaam du caagi ne fépp lay mele noonu ala kulli xaal moom définition am nee na wa huwa moom taahir alladi mooy ndox mi nga xam ne xaalatahu jaxasoo naag moom taahirun lu laab fa axrajahu mu génne ko an itlaaqihi maanaam nekkatul ndoxum kese waaye leneen jaxasoo na ci waaye la ci jaxasoo nag loola lu laab la foofu lu aaje leeral la mooy ndox mi nga xam ne danga koo yor mu doon ndox mu laab waaye am na lu ci jaxasoo loo xam ne loola lu laab la maanaam daal ceeb dugg na ci wala cere dugg na ca wala am soow sottiku na ca wala meew jaxasoo na ca am na daal lu ko fekk ci loo xam ne lu laab la mu ñëw jaxasoo ci biir ndox moomu foofu dañuy xool li ko fekk ci te doon lu laab ndax bim ñëwee dafa soppi ndox mi ba yoratul turu ndox wala déet su fekkee yoratul turu ndox waaye leneen lañuy wax su boobaa moom mënees na ko jëfandikoo ci lu ñuy lekk waaye nag kenn mënatu ko jëfandikoo ci njàpp ak sangu loola mooy lan am raxasit am raxasit wala am sebet dafa naa ne yooyu leen lu ci nekk tur boppam la yor am póotiit ànd ak ne póotiit léeg-léeg sobe sobe nekk ci waaye suñ jàppoon ne lu laab kese moo fa daje itam tuuru ndox moom daal nay soppiku kon li ko yóbbu ba tuddatul ndox ñu ne léegi am sebet la tudd wala am raxasit la tudd loola yóbbaale na ñu mën caa kenn mënatu caa jàpp mënatuñ caa sangu waaye ginnaaw lu laaba ca dugg nag kuy togg ba la neexee nga ñulug ci togg ku ko mën a naan noonu it ba la neexee nga naan sebet mi kenn du la ko tere dara nekku ci defe naa loolu leer na su fekkee nag loolu jaxasoo na ci waaye soppiwu ko nag teewul ba tey ndox la tudd dañuy xam ne lii daal am ndox la moo xam ne meew sottiku na ci ndax gis naa ko bi mu ciy sottiku laax dugg na ci wala cere dugg na ci wala leneen dugg na ci loo xam ne lu laab la waaye teewul ba tey am ndox la su boobaa mënees na caa jàpp mënees na caa sangu waañi dara kon kooku mooy daabit bi koy leeral ginnaaw tuuru ndox a fa nekk ba tey rek kooku mënees na ko jëfandikoo saa bu tuddatul tuuru ndox nag su boobaa kenn mënatu ko jëfandikoo loolu la boroom xam-xam yi di tuddee cafka gu soppiku wala melokaan wu soppiku wala xeet gu soppiku yooyu su amee rek weneen tuur lay daal di yor maanaam yoratul melokaanu ndox wala yoratul xetuk ndox wala yoratul cafko ndox su cafka yooyu demee kooka tuddatul ndox bu boobaa tur wu bees wala yor am nag geneenuk soppiku goo xam ne dafa dëkk ak ndox mi dafa dëkk ak ndox mi ndox mi mën nay ball ci suuf fekk fi muy balle suufus xorom moo fi nekk ndox mi génn saf sopp xorom su boobaa mënees na caa jàpp ak lu xorom sa bari bari mënees na caa jàpp ndoxum géej dara gën ko wex xorom waaye dañ cee jàpp di ca sangu mën naa balle foo xam ne suuf si dafa ñuul ba mel ne këriñ nga xam ne boo tanqee ndox mi danga koy gis mu ñuul kukk su boobaa mënees na caa jàpp mënees na caa sangu ndax li ko soppi dafa dëkk ak moom dafa dëkk ak moom béréb boo xam ne dafa mel ne palaasu carrière la dafa xonq ndox ma nekk fa di fa balle nga tànk ndox bi génne gis mu xonq coy moomu ba tey mën nañ caa jàpp mën nañ caa sangu ndax li ko soppi dafa dëkk ak moom te du sobe te du sobe jooju nag lu ci am solo la najisun mu ne ñetteelu xaaji ndox yi nag mooy ndox moo xam ne moom sobe la ndox mi nga xam ne dafa nekk sobe maanaam ndox mi sobe tàbbi mu ne wa huwa moom alladi mooy ndox mi nga xam ne xaalatahu wala xaalatathu jaxasoo naag moom najaasatun sobe fa xayarat mu soppi axada awsaafihi kenn ci ñetti melokaanam yi maanaam am ndox ngi daal moo xam ne sobe tàbbi na ci ba soppi melokaan wi wala xet gi wala cafka gi su boobaa kenn mënatu caa jàpp mën a seetu ca sangu kon mënee su ko jëfandikoo kon ci ak jaamu yàlla su ci sobe tàbbee nag su ci sobe tàbbee te soppiwul dara maanaam ab teen a ngi daal sobe tàbbi na ci moo xam am sawa ci tàbbi wala lu mën a doon loo xam ne wóor na ne sobe la waaye dugg na ci waaye nag ndox mi bari na ba li ci tàbbi amul benn jeexit su boobaa ban àtte lay yor su boobaa dara dara soppikuwut atte ba mu yoroon rek lay yor mën nañ caa jàpp mën nañ caa sangu mooy géej gi rek nit ñi dañuy génne seen sobe def ko ci ay téewa mu dem sotti ca géej gi waaye géej gi bari na bari waay boo xam ne la cay tàbbi ci sobe mënu koo soppi nam meloon rek la mel kulóoram la yor cafkaam ba mu yoroon la yor xetam gam yoroon naka jekkitam moom la yor loolu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne ida balaga almaau qullatayni lam yaxmil alxabas maanaam ndox mi daal su xasee ba bari su ca tàbbi sobe su ca sobe tàbbee itam mënatu caa jeexital mu misaal ko ci ñaari xulla xulla mooy ay ay baag yu mag ñi koy tudde mbuuka maanaam mbuuka benn lu mel ne mbuus lay doon waaye lu rëy lay doon day mel ne barigo boo xam ne daal barigo der la ndax day def lu mat soixante-dix litres am ñoo xam ne dana dem ba cent litres sax kon wala wala lu ëpp loolu sax day dem ba mat ay barigo léeg-léeg ndax ñi koy liggéey ay dimension lañ ci liggéey lañ ci daan liggéey yu bokkut rawatina fi mu gënoon a siiwe ñi koy wax hajar ca Baxrayni moo tax dañ daan wax ne xilaalu hajar muy mbuuka yi nga xam ne dëkk bu ñuy wax hajar lañ ko daan liggéeyee ya ci gënoon a siiw yoo xam ne day mat cent litres da cay mën a nekk wala mu yées ko tuuti wala mu ëpp ko lu baree bari waaye lay jubluwaay ba daal mooy ndox mi su xasee bari ba bu ca sobe duggee mënu koo soppi maanaam mënta soppi melokaan wi boo xooleet ndox rek ngay gis mënta soppi xet gi boo fóoneet ndox doo nga lay xeeñ mënta soppi caf ko gi boo ko defee ci sa gémmiñ itam ndox rek lay saf donte la ko la ca dugg sobe la it koo ko téewul mën nañ caa jàpp mën nañ caa sangu waaye nag loolu yi ci tàbbi nag su demee ba not nag ba nga xam ne looloo ca ëpp maanaam dem na ba booy xool daal xam nga ne lii ngay gis moom nekkatulum ndox kese te fekk li ko soppi sobe la sobe la wala bi nga ko mosee saf na leneen lu bokkul ak ndox te loola sobi la sobe la wala mu xeeñ la ko su boobaa ndox moomu moom mënatu la jàpp mënatu la sangu ñetti xaaj yooyu moom la ndox am kon daal ndox mi nga xam ne daa wàcce ci kaw asamaan si wala mu jóge ci suuf si ak fu mu fa mën a jaare nag moo xam géej ga la wala dex ga la wala teen ba la wala sayaan ga la wala mbënn ma la wala fu mu mën a doon ndox moomu manees na ko jëfandikoo ci jaamu yàlla buñ ne jaamu yàlla mooy sangu ak jàpp ndox mu laab moomu dara tàbbi na ci doon lu laab waaye téewul ba tey ndox la tudd parce que melokaanam yi benn soppikowu ci muy xet gi ak caf ko gi ak gis bi su boobaa ndox moomu mën nañ caa jàpp saa bu demee ba soppi ko ba tuddatul tuuru ndox nag su boobaa mënatuñ caa jàpp su ca sobe tàbbee itam te soppiwu ko ba tey mën nañ caa jàpp waaye su ko soppee kenn mënatu caa jàpp loolu mooy atteb ndox yi nga xam ne noonu dañ koy aajowoo xam ngir suñuy jàpp wala nuy julli nu mën koo jëfandikoo kon lii lépp day préparation day pare mbir yi pour ñu mën a jàll ci njàpp ak sangu nuñ koy defee ndax ci kitaabu taxaara lañ nekk muy koo xam ne lépp lu aju ci laab moom lañu bëgg a jàngal ba noppi moo tax mu teg ci baabul aaniya mooy buntub ndab yi ndab yi matériel bi nga xam ne dañ koy jëfandikoo suñuy jàpp maanaam kenn ku nekk soxla na koo xam ndax kenn ku ne réere wut ne xëy na léegi ñu bari bu ñuy jàpp da ngay ñëw taxaw ci robinet rek di jàpp waaye ba léegi nit ñaa ngi jàpp ci sotta la bu yàggoon nit ñi dañ daan jàpp ci sotta la dañ daan jàpp ci ab kalamba wala andaar wala xeet yooyu nga xam dañ ko daan jëfandikoo ci ay nattukaay yépp lu ci nekk dañ ko daan jëfandikoo ci laab ay potak ay satalaak xeet wu nekk kon ndab yooyu nga xam ne dañ koy jëfandikoo en tant que loo xam ne jaamu yàlla la moom it laaj na ñu xam lan moo di atteem ndax jullit diineem dafa bàyyiwul dara ci mbiram bàyyiwul ndox mi bàyyiwul jumtuwaay bi muy jëfandikoo ngir laab kon loolu moo tax mu teg ci buntub al aaniya mu ne wa fiihi xamsatu dawaabit foofu am na juróomi reegal juróomi tënk am na foofu juróomi tënk mu ne addaabitul awwal tënk bu jëkk bi yubaaxu isticmaalu kulli al aaniyati illa aldahaba walfidda yubaaxu danañ daganal isticmaalu kulli al aaniyati jëfandikoo mboolem ndab yi ndab yépp a dagan ñu jëfandikoo ko illa dahaba bam des or wal fiddata ak xaalis maanaam argent ndab yooyu moom bu fekkee dañ koo liggéey ci or kooku daganul ab jullit di ko jëfandikoo munu caa jàpp munu caa sangu munu caa naan sax am ndox jël kaas boo xam ne or la wala mu nekk xaalis wala kudd goo xam ne xaalis la wala or nga di ko jàppe wala nga di nga nga di ko naane wala nga di ko lekke loolu shariatul islam ci boppam daf koo tere daf koo tere jullit kon daal tënk bi mooy ndab yépp a baax ba mu des boo xam ne or la wala mu nekk xaalis yooyu moom kenn mënu ko jëfandikoo ad-daabitu thani tënku ñaareel ba aaniyatul kuffaari ndab yi nga xam ne yéefar yee leen moom mooy ñi nekkul ci diine lislaam taahiratun nee na ndab yooyoot ba tey yu laab la maalam yuclam li feeg xameesul annahum ne ñoom yéefar yooye yastaxdimuunaha dañ koy jëfandikoo fi najaasatin ci sobe kon daal ndab yi nga xam ne ñi dul jullit dañ koy jëfandikoo jullit bi jekki-jekki jot ca ndab loole nee na sooy ba mu jàppe ko ndab lu laab lu dul nag su ko wóoree ne ndab lii kat gaa yi dañ koy jëfandikoo ci loo xam ne lu laabut la dañ ci naan sàngara dañ ci def nangam te ci naan ci wax yi ñi nga xam ne dañ na sàngara dafa nekk sobe ndax am na ci boroom xam-xam yi ñu ko wax wala ñi cay mu doon ndab loo xam ne dañ cay lekk yàpp mbaam wala yunuroog yooyu ala kulli xaal su la wóoree ne dañ koy jëfandikoo ci lu sobewu ku ko du dagan nga di ko jëfandikoo lu dul soo ko raxasee lu dul soo ko raxasee kon li gën a dal xel mooy ndab li nga jot te moomoo ko te xamoo ku ko yoroon ndax jullit la wala yéefar la wala kum mën a doon bala nga koo jëfandikoo nang ko raxas ba mu set wecc ba mu wóor la ne set na boo ci mënee def ordre savel wala xeetu raxasukaay yi ñu ko mën a raxase ba mu wóor ne lii ndab set na moo xam ak satala la moo xam ab kaas booy naane la moo xam lu mu mën a doon bala nga koo jëfandikoo na la wóor ne set na nga door koo jëfandikoo. te xam ngeen ne suñ réew yi léegi li fi xew mooy lu bari yu nit ñi jëfandikoo su fi ñëw du doon lu bees day fekk ay doomu aadama yoroon nañ ko jëfandikoo ko ba àggal door koo door koo indi dem na ba ci yére yi ngay sol. mën nañ koo defar ba nga xam ne day mel ni lii moom tubaarkàlla lu set wecc la waaye lool bu ca sa xel dal ginnaaw ña ko moomoon doonuñu jullit te xamuloo nan la mbiram demee la ngay tudde lu sobewu ñoom tuddewuñ ko lu sobewu te gis ngeen ne lu baree bari ñoom ci seeni toilette ay këyit ak ay morceau yu ñàkk solo lañ fay teg waaye am ndox sax duñ ko jëfandikoo kon soo amee lu jóge ci loolu mu doon tubéy wala mu doon mbubb wala mu doon xeet yu mel noonu nga doon ab jullit nar koo sol di ko jullee jaadu na nga baxalum ndox ba mu bax nga dugal ko ci biir baxal ko ba mu wóor la ne la nekkoon ci biir lépp ci ay microbe ak ay bactéries ak ay yëf yu fànn yu mel noonu seey na wala mu mu dee nga door koo génne fóot ko ba mu set wecc nga weer ko ci naaju tàng jër ba noppi paase ko feeru tàng jër yooyu yépp su àndee defe naa ne soo ko solee yow jullit bi sa xel dana xaw a mën a dal ci wàllu santé ak wàllu mën caa julli waaye ñu ne bal ba ñëw na rek nga daal di tànn daal di sol ñu ne nodd nañ ca jàkka ja nga daal di jubali jàkka ja dem julli loolu moom jullit bi waru koo def kon ndab yi ak yére yi dàll yeeg yépp ñoo bokk ab àtte ci lu jóge ci kudul jullit lu jóge ci kuy jullit sax léegi xelum jullit bi waru cee dal ndax jullit yi seeni jëf ñoom it léeg-léeg mu jaxasoo ko yeneeni jëf kon lépp lu ñëw ci yow te doon lu lu beesut rek na nga ko bàyyi xel laabal ko bu wóor a wóor a wóor door ko jëfandikoo addaabitu thaalis tënkum ñetteel bi nee na azmul maytati yaxub médd médd mooy loo xam ne dafa dee te rendiwuñ ko loo xam ne dafa dee te rendiwuñ ko aw nag la daal boroom xëy na rek dikk fekk mu dee wala aw bëy wala am xar mu fekk mu dee wala sax aw fas yooyu dañoo am ab àtte azmul maytati nee na yax bi nga xam ne yaxub médd la wa qarnuha ak béjjënam wa zufruha ak weem zufru li koy am mooy yi nga xam ne seeni we dafa am ay baaraam te gudd lu mel ne ganaar zufru la am lu mel ne xar yi zufru lañu am ndax tànk bi day xar am ñaari kii wa xaafiruha xaafir ba tey welay firi waaye moom wenn rekk lay doon lu mel ne fas xaafir la yor lu mel ne gëléem mën nañ ko ko askane doonte tànk ba xar na am na yeneen turiñ ko jox waaye fas ak mbaam daal ak baax la moom yooyu xaafir lañ yor waaye lu ci ne nag wolof moom ay termes moom dafa matut lu ci ne wela koy tudde bu dee arab nag da koy séparé zufur bokkul ak xaafir doomu aadama ci boppam zufur la yor bu dee ay ganaar zufur lañ yor ndax dañoo yor ay baaraam ba noppi wesax ca bu dee xar yi noonu lañ mel ne waaye bu dee nag li nga xam ne tànk bépp dafa ànd rek nekk benn cër bu unique ba noppi weew yi sax ci kooku la ñu tudde xaafir moo tax izamul maytati yaxub médd wa qarnuha ak béjjinam wa zufruha wa xaafiruha wa shaaruha ak karawam moo xam daa yor karaw gu gudd comme ciqul fas wala muy kawar gu gàtt comme kawaru xar yi wa suufuha ak ngëndalam ngëndal mooy kawar yu mel ni yooyu gëléem ak kawar gi lëg di am lapin kawar yu nooy yooyu wa riicuha ak ay dunqam taahirun yooyu yépp yu laab la li nga xam ne daal dafa dee te doonoon lu dagan a jëfandikoo li dee te doonoon loo xam ne lu dagan ab jullit di ko jëfandikoo maanaam di ko lekk ka naan ka war su dagan su doone lu ñuy war loolu su dee fi béréb am na ci yem bàyyi gannaaw yoo xam ne médd ma taxul loola médd maanaam yax bi médd mi amu ci jeexit ndax su xasee wow wow na jeex na béjjën ba noona du soppiku béjjënub luñ rendi ak luñ rendiwut ñooyam weeya karaw ga dunq ya yooyu yépp boo ko boolee lum ci mën a doon lu laab lay doon waaw yooyu lan moo tax ñu ne laab na luñ luñ koy doyee ci lum ci lum jëm ne kay jullit bi mën na koo soxla di ko jëfandikoo ndax kawar gi mën na cee bëgg a liggéey yére wala mu bëgg cee defar ay dàll yax bi mën na cee bëgg a defar jigéen mën na cee bëgg a defar ab lam boo xam ne comme lami iwaar yi nga gis ñu di ko defar ak yu mel noonu bu dee béjjén bi nekk noonu mën naa doon loo xam ne nit ki da koo soxla ci lu muy jëfandikoo léeg-léeg sax ñu jëfandikoo ko ci ngànnaay mu ne yooyu yépp nag dagal na jullit bi jëfandikoo ko doonte loola dafa médd waaye ci sartub ne lii dee ba médd kat dafa doonoon lu dagan a jëfandikoo nag addaabitu raabi nee na tënkub ñeenteel bi jamiicu juluudil maytaati mboolem deri yi nga xam ne dañoo médd mboolem deri mala yi nga xam ne dañoo médd tathuru dana laab biddibaaxi ci lëxunde lëxunde xam ngeen ko dey lëxunde waaw wulli moom wulli ak lëxunde bokkut wulli mooy bàcc ba tey waaye lëxunde nag dañuy jël neb neb bu foor def ko ci cin baxal ko ba mu bax ñu jël der wa teggi cin la ba mu xaw a sedd ñu dugal ci der ba bàyyi ko mu fanaan ci ba suba bu ñu xëyee dañuy fekk mu weex tàll dindi kawar ga day daal di yomb ya nekkoon ci biir ci desiti yàpp yooyu yëpp day daal di yomb su ko defee bu ñu ko faxasee rek der bi day daal di set wecc loolu mooy lëxunde wulli nag ki koy def moom day dóor day jël der bi di ko tàpp di tàllal di xus di dindi yee ca bokkut di ko def ba bu noppee mu doon der boo xam ne bu tàlli lay doon bu nooy moom itam résultat bi rek benn la ala kulli xaal li mu bëgg a wax foofu moo xam dóor ngay jëfandikoo moo xam da ngaa jëfandikoo mu nen wala jamono dem na ba ab usine di ko def wala lu mu mën a doon waaye daal der bi nga xam ne deru medd la ñu jël ko fexe ba laabal ko maanaam la ca nekkoon ci lépp luy nuru yàpp dañ na ñu defar ko ba nga xam ne set na wecc léegi su boobaa mënees na ko jëfandikoo mënees na ko lal julli ca mënees na caa def lépp mu ne nag illal kalba ba mu des nag deru xaj wal xinziira ak mbaam mbaam mooy mooy mbaam xuux yi ngeen xam kooku moom der ba mënees ko def nen ba mën caa jariñu ci jullit moog deru xaj ñooyam kon deru xaj diisu ci julli diisu ci liggéey yére di ko di ko sol diisu ci defar ay dàll deru mbaam xuux itam noonu ñoo bokk àtte boobu loolu leer na addaabitul xaamis takkub juróomeel bi yusannu nee na danañ sunnaal taxtiyatul aaniyati ñuy muur ndab yi wa iikaaul asqiyati ñuy takk gimiñug mbuus yi danañ ci delsi wa iglaaqul abwaabi ak ñuy ubbunt yi wa dikru smillahi alayha ak ñu cay tudd turu yàlla inda nawmi saa bu ñuy tëdd daabit boobu daf ko mottalee lim doon wax maanaam tënk bi dafay mottali lim doon wax waaye li muy wax nii jëmut ci laab jëmul ci ndax lu laab ak lu laabul waaye dafa jëm ci teggiini jëfandikoo ndab moo tax mu ne danañu sunnaal ndab yi ñu di ko upp yow daal danga yor sa ndabi togg moo xam ay bool la moo xam satala la moo xam la ñuy jëfandikoo lu mu mën a doon boo ci liggéeyee ba wàcc war a dem tëri nga upp sa ndab bu dee satala nga upp sa satala te wax bismillah ndax soo ko ubbee doo xam lu cay fanaan la ko tàmbalee ci ngelaw ba ci mala buy dox wala yu mel noonu mën naa ñëw dugal ci gimiñam te doo ko yëg sobe nekk ca wala luy gaañ doomu aadama nekk ca nga ñëw def ca sam ndox naan musiba dal la wala nga jàpp ca fekk sam jàpp baaxul te doo ko yëg kon ub sa ndab moo gën a wóor lu gën a bari nag ci càggante yi surtout lu aju ci satala yi ñuy jàppee da nga gis ko indi satala satala gi nekk fii kubéer ga nekk fële bu yàggee tuuti rek duutoo gis kubéer satala yi kese ngay gis yoo xam ne ay kubéer nekku ca loolu ay càggante yu mag a mag a mag la parce que satala gi fu mu tegee fu nekk dafa war a ànd ak kubéeram ñu ub ko suñ demee ba jëmmi jamono ñu boole ñaar yépp raxas ba mu set wecc defaraat teg kon sunnaal nañ ci wàllu teggiin ne ndab yi nañ leen di upp wa ikaa'u al asqiyati al asqiya kooku jamu saqaa la saqaa mooy mbuus ñoom lu bari dañ daan jëfandikoo ci seen jamono dañ daan jëfandikoo mbuus di ca def ndox mbuus yaakaar naa ne xam ngeen ko moom xam mbuus mbuus suñu reyee ab gàtt am na nuñ koy feese noo xam ne dañuy summi der bi noonu rek mu génn tànk yi day des ci der bi su ko defee ñi takk ñi takk fi tànk yi nekkoon dañ koy fas gannaaw boo xam ne defar nañ ko ba mu set bàyyi baatu baat ba nag mu nekk solukaayu ndox suñ ca solee ndox ba mu fees dañ koy takk kooku suñ daan tukki seeni gëléem ak seeni mbaam ak seeni fas ak yooyu dañ ko ci teg mën na leen a yor lu yàgg yàgg ñu di ci naan ndox kooku mooy mbuus kon dañoo bëgg ñu di ko takk bu doon ci sun jamono ji da ngay wax ne butéel bi nañ koy saañ bëgg nañ butéel ñi di ko saañ sa butéel bi ngay naane bul ko génne rek naan ba pare teg ko ci kaw firigo bi kubéer ga nekk fële nga fanaanal ko mu dem noonu loolu jooyoo na ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu orientation ci wàllu yar ak ci wàllu sàmm li ngay dugal ci sa biir wala li ngay jàppe kon daal li nga xam ne ndox da caa nekk te ndox mi da nga koo bëgg a jëfandikoo waat ci sam njàpp wala ci sa cangaay wala sax muy ndox mooy naan bul ko bàyyi noonu mu fanaan te te ubboo ko wa ixlaaqul abwaabi ak ñuy ub bunt yi ñuy ub bunt yi bunt yi mën naa doon bunt kër yi mën naa nekk bunt néeg yi ba tey fenêtre yi it dugg na ci kon loolu ci yiñ sunnaal la bokk maanaam yiñ bëgg ñi di ko def ci la bokk ci teggin yi ci la bokk waaye nag ñi xam ne loolu ci boppam nekkul li ñuy wax maqsuud li zaatihi du caagi ni liñ ci jublu rek mooy bunt bi ub ko mooy sunna waaye liñ bëgg mooy nga def kaaraange goo xam ne fi nga nekk fitna du la fa fekk bu dee amoon na say ndab yoo fa teg yoo xam ne danga koy jëfandikoo itam dara waru caa mën a ñëw loo xam ne daf koy yàq wala mu koy sobeel wala yu mel noonu kon suñ jàppoon ni kër gi nga dëkk tey li ko wër am na kaaraange nga ub kaaraangeeg bitti gi ba mu wóor la ne dara mënatu la jéggi kaaraange googu di dugg ci biir kër gi su boobaa néegee nekkaat ca biir nag nga xam ne wóor la ne sécurité am na fa amul mala buy dox di fa dugg amul jaan ju fay ñëw amul agresseur buy tëb di la fa fekk su boobaa lañ ci jublu woon loola am na ndax loolu léeg-léeg nit ki day aajowu ubbi ay buntam léeg-léeg tàngoor ñëw metti lool nit ki bu ubbiwul ay buntam du nelaw kon buum daal di gëm rek ne sunna mooy faaw ma tëj samay bunt daal di tëj bunt yi ak fenêtre yi tëdd ci biir tàngooru metti sunna waxut loolu sunna lim wax mooy góor-góor loolu ci sa kaaraange kër gi daal am na ay néeg yu yor seeni bunt waaye nag am na kaaraange bitti goo xam ne suñ xasee tëj bunt kër gi moom amatul fu nit di jaar di dugg ci biir kër gi su boobaa tëjal bunt kër gi bu baax a baax bu fekkee ne ci jamonoy sedd nga nekk bu la neexee nga tëj say bunt bu dee jamonoy tàngoor nga nekk bu la neexee nga ubbi say bunt wala nga ubbi say fenêtre su boobaa dara lu ci nekk. li ci dolli mooy yooyu yépp nag soo koy def lum ci mën a doon na nga wax bismillah lum ci mën a doon bul xeeb yaa ngi. muur ndable wala nga di ko ub di ub satala gi yëkkati kubéer gi teg neel bismillah yaa ngi ub bunt bi yor sa caabi tëj neel bismillah yaa ngi naan ba pare di ub sa butéey ndox mi ci nekk ngay ub waxal bismillah loolu lépp sunnaal nañ ko sopp nañ ko ay teggin la moo tax mu ne yu sannu danañu sunnaal taxtiyatul aaniyati ñuy ub wala ñuy saañ ndab yi wala ñu leen wa ikaawul astiyati wala ñuy saañ li nga xam ne mooy mbuus yi wala butéel yi wa ixlaaqul abwaabi ak tëj bunt yi yooyu yëpp sunnaal nañ ko wa dikru smillahi ak tudd turu yàlla alayha ca moom inda nawmi saa booy nelaw yooyu yëpp nga def ko fexe ba sa yëpp daal lu mat a ub nga ub ko loolu ci itte la bokk loo xam ne góor ñi ak jigéen ñi war nañ cee dimbalante wattandi ko di bàyyi seeni ndab rek mu tege noonu ndab li nga xam ne amooloo ko ubbee sax wala baaxoowul di am kubéer kon moom nga bañ ko bàyyi mu di ju jëm ko waaye nga këpp ko boo ko raxasee ba mu set nga këpp ko raxas beneen këppaat ca kawam su ko defee say ndab ubbi ko wuñ lu ci am kubéer nga raxas ko ba mu set nga ub ko bu dee satala rawatina loola bu dee leneen nekk noonu kon defe naa ci ak tàmbali mën nañoo yem foofondi incha allah ba ci dars bi ñëw su amee ay question yi ci jëm ñu jaar ci bala waxtu wee jot incha allah تفضل
jazakumullah xeyran cheikh allah xeyran آمين jazaa يا رب العالمين ma am benn laaj lu aju ci euh, baabul aaniya مهم.
addaabitu raabi
مهم.
dafa wax ni jamiu juludil maytaati tadxuru bi dibaax illa al kalba wal xinzir مهم.
istisna boobu mu def ci al kalba wal xinzir مهم.
te buñ gisee xadis bi ci rot xadis bi rot muy xadisu ibnu abbas radiallahu anhuma مهم.
wax na yonent bi alayhi salaatu salaam dafa romb gaañu di di gàtt goo xam ni yaay Maymuna moo ko moom mu laaj leen ne leen lu ci nekk ñu ne ko dafa faatu foofu borom xam dañu wax ni dafa am ah, lafz bu mu jëfandikoo wax ne ayyuma ihaabin dubir faqad tahur yenn ci borom xam-xam yi gis ne ayyu foofu min alfaazil umum la مهم.
ba ñoom ñi wax ni euh, loolu shaamil li jamii al julud مهم.
maakulati lahm wa gayru maakulati lahm مهم.
te dañ gis nga tudd noonu istisna bi taaliqoo ci dara ahsant Euh, exception bi mu def ci illal kalba wal xinziir muy euh, kalb muy xaj ak mbaam xuux mu wax ne ñoom seeni der munta laab ànd ak ne am na xadis boo xam ne dafa wax ne lépp loo xam ne lëxunde nañ ko rek mu laab ñu jàpp ne kon loolu daa war a dugg ci xadis booba boroom xam-xam yi ci seete ñaari mala yi muy xaj ak mbaam xuux ci yeneeni texte lañ sukkandiku ndax dañ ne xaj ginnaaw dafa am exception bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam def muy làmmiñam bi bu ko dugaloon ci sam ndox rek ndox moomu danga koy raxas juróom ñaari yoon ñu ne kon kooku ak sobe woom dafa diis ba jéggi dayo comme que loolu na nag kooku moom léppam sobe la xinziir alquran dafa ñëw ne rijs la moom ci jëmmi boppam tudde ko sobe comme que sobe la ko alquran tudde nag moom ci boppam ñu ne kon kooku daraam munta laab maanaam boroom xam-xam yi wax foofu loolu foofu rek lañ ko sukkandiku donte euh, jàpp naa ne man wax jooju wax ju dëgër la euh, waaye li tax junjuma li nga wax mooy dañoo bëggut a dugg ci xilaafaatu fuqaha yi ci tàmbalikaayu dars boo xam ne bu mel nii la surtout fiq amul benn masala booy wax daanaka ci masalay fiq lu dul am na ñaari wax wala ñetti wax wala ñeenti wax wala juróomi wax ba ci fukki wax léegi la nga gis masala boo xam ne tubaarkàlla la ci nekk ci ay wax kenn du xam nu mu toll waaye jéem a góorgóorlu ba liñ jàpp ne moo nekk raaje rek ñu tudd ko loolu mooy li ci am solo te borom téere bi dama seetlu ne loolu góorgóorlu na ci bu baax a baax masala bu nekk bu mu àgg bu nekk la muy teg la muy tudd boo delloo ca xilaafaat yee ca am da nga gis ne lam tudd mooy li li ca gën a jege lu nekk raaje kii dafay laaj lan mooy illa maanaam lan moo tax ñu araamal ci jullit yi ndabi wurus ak xaalis illa bi day xam naa ne ñàkkul ne boroom xam-xam yi jéem nañ koo làmbatu làmbatu waaye nag am yaqiin ne lii moo tax ñu xaraamal ko kooku du yomb liñ xam daal mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi laaxira nee na ndab yooyu ñu dul jullit yi ndabi wurus ak xaalis ku dul jullit ñooñu ñoo ko moom fii ci àdduna waaye yéen nag yéen a ko moom ëllëg ca àjjana bu ëllëgee seeni ndab wurus lay doon ak xaalis kon loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax loolu la ñuy jàpp am na ñu koy firee ne ak fuukarewu la ak yàq alal la ndax nga toog jël say kudd def ci def ko mu nekk or say potinda nekk or say say montar nekk or fuqaraaw yu wër la waaye yooyu yépp nag jàpp ma ne illa bu dëgër la ci taxrim bi sunu borom tabaraka wa taala daal lim tere loola moom bàyyi rek la tudd sawaaun moo xam ndax xam nañ lu tax ñu tere ko wala xamuñu lu tax ñu tere ko kii mu ne ndax dagan na ñuy lekk fas sax na ci ay xadis yu baree bari ci jamonoy saxaaba yi euh, lenn sax ci dunduk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci teewaayam rey nañ fas lekk ko terewuñ ko waaye nag dem nañ ba jëmmi jamono surtout ci jamono yu Omar ibnul Xattaab mu tere ñuy rey fas yi ak di ko lekk ànd ak ne ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu doon na am doon nañ ko rey doon nañ ko lekk foofu nag dafa am ñaari mbir yoo xam ne yu mat a xàmmee la mooy asiyaasa shariya ak al fiqhu al islami al thabit ñaar yooyu léeg-léeg dañuy jaxasoo ci masala ñi leen xàmmeewut dañuy waaru ci bunt boobu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan lay daganale dara Omar ibn Khattab ñëw di ko tere siyaasa sharciya muy politique bi nga xam ne doxaliin baatu politique sax mu noonu dafa xaw a ñaaw ci nun waaye tëriin wi nga xam ne njiitul jullit yi dem na ba xool gis ni kii intérêt public la mu aar ko mu aar ko loolu sharia daf ko ko digal maanaam dem nañ ba jëmmi jamono jullit yi aajowoo nañ fas aajowoo goo xam ne jéggi na dayo ci seen jihaad fi sabilillah Omar ibn al-Khattab gis ne suñ bàyyee nit ñi ñuy rendi fas yi di ko lekk léegi duutuñu am luñ war di jaamaarloog noonu lislaam yi mu ne leen bu fi kenn reetiw fas génn benn décret tere ko loolu faaw ñi xàmmee ko dañ lay wax ne li li wuutale fiq ak siyaasa sharciya mooy li sax ci al fiqhu al islaami maanaam al sharcu al islaami li ci sax muy al fiqhu al islaami loolu dafa sax ba faaw du soppiku siyaasa sharciya nag benn contexte muy ñëw am na daal lu xew lii ñu digle ko wala ñu tere ko su loolu jàllee loola delluwaat fa mu nekkoon loolu Omar ibn Khattab daf ciy jëfandikoo lu bari loolu moo tax bi nit ñi di fooyee passé ku wax ak soxnaam rek ne ko fase naa la ñetti passé Omar ibn Khattab radiyallahu taala anhu dane ku ko defati danaa ko wéyal maanaam ku faseeti sa jabar ñetti passé ci benn place ñett laa koy jàppe bi maanaam duutu mën a jot ci jabaram li feeg deful baada zawj faaw mu dem sëyi ak keneen doora delsiwaat kooku du fiq waaye siyaasa charia la problème dafa am musaafara ko moo tax nit ña bañ jàjjoo kenn ñemetu la fase sa jabar ndax xam nga ne soo ko fasee ñàkk nga ko loola daal di néew lool ci société bi bi jamonoy Omar ibn Khattab passé atte boobu dafa daal di dellusiwaat parce que muskilam bi mu doon saafara problème bi saafara wu na siyaasa charia day ñëw ngir saafara problème bu jeexee fiq ba delluwaat fa mu nekkoon al fiqul islaami nag du du soppiku moo tax juuyoo yi ci am ci téere fiq yi ñu naan pasem ñett ndax benn lay doon ak ñeent lay doon ñi werante naan diw nee na ñett lay doon yooyu yëpp ñàkk a tasiil bunt boobu la pour xàmmee li jëm ci fiq bi ak côté bi jëm ci siyaasa charia bi ñu yëg ne loolu luñ amaloon la bu jàllee day dem am na at moo xam ne Omar ibn Khattab radiyallahu taala anhu daf ne ñu sàcc bu kenn dagg seen loxo ñu sàcc bu kenn dagg seen loxo ànd ak ne kooku xaddun min xududillah ndax Omar day soppi charia déedéet dafa gis ne ñàkk gi jéggi na dayo ba nit ki mën naa def loo xam ne du jikkoom kon kooku bu kenn dagg loxoom ci loolu su sàccee daal na fay alali jàmbur lam sàccoon jàpp nañ ko na delloo borom alalam foofu la ko yemale woon muy at moo xam ne at mu ñàkk gi jéggi dayolo bekkoor gu mette mette metti mu yëkkati xadd boobu ba at mu jaar mu delloo siwaat ko kon loolu lu mat a lu mat a xàmmee la loolu moo taxoon mu tere ñuy lekk ay fas waaye li wér mooy lu dagan la ñu di ko lekk sharia al islamiya xaramalu ko xam naa kii li mu bëgg a laaj moom des na leer ndax dagan na ci nit ki muy lekk mala yi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi mala yi nekk ci àll bi moom yu bari la yenn yi dagan na ñoo lekk yi ci des dagan na ñoo lekk ala kulli xaal yi ci bare bari yu dagan la yu mel ne kéwal yéeg yenn roog ñoom mbëtt yéeg ñoom seen ñooyu yépp ci àll bi lañ nekk te dagan na ñoo lekk waaye am na yu nekk ci seen biir yoo xam ne itam kenn du leen lekk ndax mbaam xuux yi ni ñu amee ci kër yi noonu lañu amee ci àll yi su boobaa ñoom itam duñ dagana lekk kii xam naa li muy wax day jëm ci méthode yi jàngale yi muy wax ne dafa am ñoo xam ne dañ ne téere yiñ gàttal ci fiq lu mel ne laxdar yi ki koy jàngale warta tudd dalil yi warta indi dalil yi maanaam warta indi ay alquran yi ak xadis yi gi mel noonu yiy dëgëral masala bi ndax su ko indee kiy jàng kiy jàng mën na ko bañ a comprendre ok mën na koo comprendre itam xanaa mu bañ koo yan lum àttanut daal la ñuy wax kuy jàng daal te bëgg a dégg li nga jàng jaaduwul ñu lay yan loo xam ne loo àttanut la waaye dalil ni nga mën a jàngee matnu fiq bi comprendre li boroom xam-xam bi di wax wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a yomb seeni wax ñoom wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën a yomb a dégg waxi fuqahaa yi ku jàng ci yéen muxtasaru xalil rek da nga xam loolu téere la boo xam ne téere muaqqad la léeg-léeg fi'l dana nekk fii faa'il ba nekk ca gannaaw ñaari paas wala ca paas ba ca des su fekkee kuñ ko jàngalut la mustaxil la nga mën a xam téere bi li muy wax lu mu doon kon jàng muxtasaraat yi lu am na njariñ ci dana miinal nit ki mu mën a jàng lu jafe ngir bu lu yomb ñëwee mu gaaw koo xam dana ko jariñ ci imaginer wu muy tasawur ay masala yu bare bare bari ci fiq mu nekk ci xelam ba su dalil bi ñëwee rek ànd ak masala yooyu day gaaw a leer lool ci moom waaye nag wàññiwul dara lu mel ni lii nuy jàng nii nga xam ne téere bu gàtt la suñ koy jàng léeg-léeg nu tuddaale dalil parce que dalil bi ki ngay waxal bu ko déggee da koy xam rawatina nga di ko wax ci làq woo xam ne wu mu dégg la kon loolu nekkul manhaj boo xam ne bu nekk mu tarit la ala kulli xaal lii dafay laaj ñaari laaj kaña kaña lay laaj ndax lekk ko dagan na wala daganut ala kulli xaal gisuñu dalil boo xam ne bu koy tere la gisuñu dalil buy tere ku lekk kaña mu des nag ki ko bëgg a lekk ki ko ki ko soxlaa lekk nga xam ne mën na koo lekk ak ki ko seexlu ki ko seexlu bu mu bu mu ko lekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu toogee benn bis ñi indil ko mbët mu jañ ko Xaalid ibnul Walid maanaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nanguwut a lekk Xaalid moom tàmbali di lekk bi mu lekkee ba àggal mu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a xaraamun ya rasulallah ndax dafa xaraam mu ne ko inni aafuhu ci beneen riwaaya bi lam yakun bi ardi qawmi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko man dama koo seexlu dama ko seexlu maanaam mënuma ko lekk beneen riwaaya bi day wax ne dafa da loolu dafa amut ca sun dëkk maanaam sun dëkk loolu amu fa lu bari nag ci firikati xadiis yi léeg-léeg dañuy juum foofu lam yakun bi ardi qawmi ñu bari dañ koo firee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kat fa mu dëkkoon mooy màkka te màkka mbëtt amu fa waaye loolu njuumte la màkka ci dëkk yi gën a bari ay mbëtt ci la bokk ba ci sun jamono ji ci dëkk yi gën a bari ay mbëtt doji màkka yooyu ngay gis dafa fees dell ki mbëtt bëccëg sax boo fa jaaree da ngay seen ñuy daw kon li nekkul woon seen li amul woon seen dëkk mooy lekk mbëtt lam yakun bi ard qawmi maanaam akluhu maanaam nun daal sun dëkk kii moom duñ ko lekk loolu moo tax man dama koo seexlu waaye waxul ne mbëtt amu fa de kon bët am na mbokk mi mel na ne ku ku xam yu bari ci doxalini nit ñi ci ci dëkk ci kaw gi la borom laaj bi de ñaareelu laab jam nee na ñi nga xam ne dañuy duy ak ab siwo wala baag wala dara ba àggal ubuñu ca dara waaye ñu jël bant rek bant bu sew daal di koy gàll ci kaw noonu ndax loolu am na cosaan ci sharia déedéet amu ci cosaan maanaam ub lañ wax ub ko ubiin woo xam ne dara du ci mën a dugg waaye nag jël bant gàll ko ci rek wax ne da ngay baaxantal ub gi kooku moom amul benn njariñ moo tax amul cosaan ci sharia allahu taala alam ndax eh, ndox mi nga xam ne savon daf caa nekk mën naa laabal mbubb moo xam ne sobe da caa nekk waaw waaw mën na ko laabal bu baax a baax ndax eh, noonu rek lay mën a demee du caagi ne faw ndox mi ngay raxase sobe faw nga wut loo xam ne ndox mu sell mu dara jaxasoowut rek la moo ko mën a raxas comme ni nga xamee ne sooy jàpp wala sooy kii déedéet demewul noonu lépp loo xam ne mën naa dimbali nit ki ci izalatu najaas najaasa muy setal ko jumtuwaay boobu sañ na koo jëfandikoo kon sañ naa jëfandikoo saabu bam xoos ko bam set wecc ba àggal su noppee nag mu selendee ko ndox moo xam ne mu sell la kon noonu lañ bëgg mu demee ndax nag taahir ci boppam mooy taahir li fi nafsihi al mutahhir li ghayrihi déedéet loolu boroom xam-xam li ñuy wax kooku mooy at tahuur taahir nag mooy ndox mi nga xamee ne laab na ci boppam waaye mën naa laabal leneen su fekkee ne la ca dugg soppiwut euh, melokaan ya wala duutu ko man su fekkee ne melokaan ya soppi ko na ba yoratul sax wowu tur tayib ñu jël laaji fiq yi bu ñu noppee delsi ci yeneen yi kii dafay laaj mala yi ñuy lekk ak yuñ dul lekk nuñ ko mën a xàmmee li ñuy xam mooy al asl maanaam liy cosaan mooy lépp dagan liy cosaan mooy yi ñuy lekk lépp a dagan a lekk ba mu des loo xam ne teg si ñëw na la bul lekk lii kon kooku mooy cosaan moo tax mala yi bépp boo ci xam ne teg si ñëwul di ko xaraamal xamal ne booba bu dagana lekk la mu des nag ndax nit ki moom bëgg na lii wala bëggu ko boo ko seexloo sañ nga ne man lii duma ko lekk ndox moo xam ne diw da cee dugg bay bay feeñ waaye nag soppiwul cafka ga la shakk ne loola mënees na ca jàpp mënees na ca sangu du yàq dara nee na yéefar yi ci seeni feet léeg-léeg dañuy jox jullit yi ci seeni ñam ndax dagan nañu lekk ko wala déet liñ leen di jox lañuy xool liy cosaan mooy ñamu ahlul kitaab mu yahuud yi ak nasaraan yi seeni ñam lañu rendi sax dagan na ci jullit bi mu di ko lekk kon suñ la joxew ñam la cay cosaan mooy mu dagan nga lekk ko lu dul soo amee lu la wóor ne ñam wi ñu lekk ngay tiim nii sobe jaxasoo na ci wala lu xaraama lekk cib jullit jaxasoo na ci bu doon aw yàpp daal mu wóor la ne yàpp mbaam a ngi ci kooku moom daganul nga di ko lekk bu la wóoroon ne sàngara mi ngi ci su boobaa bu dee lu ñuy naan du dagan nga di ko naan waaye su dut loolu day doon loo xam ne lu dagan la su doonee looy sikki sàkk itam bu la neexee nga jël bu la neexee nga bàyyi ala kulli xaal bu dee ci feet yi la nag kooku beneen beneen affaire la boo xam ne kooku day dellu ci wàllu jëflente ak seen feet yi nga xam ne ñoom dañ koy jëfe su fekkee ne jullit bi su ci lekkee dañ ci déggee ne moom dafa ànd ak ñoom ci feet gi maanaam day feetu su boobaa lekk ga moom du dagan waaye su dut loolu moom jëmmi feet gi ci boppam du soppi ci ñam wi dara teewut la daganoon ci jullit moom dagan na ci moom ba tey waaye nag su fekkee am na nag beneen yëg-yëg buñ cay am moo xam jullit yi ñoo koy am wala ñeneen ñi ñoo koy am jàpp ni jullit bi day feetu moom itam su boobaa loola du dagan ànd ak ni jullit yi léegi moom allahul mustaan ñoom ci seen bopp sax dañuy feetu di toggal seen bopp seeni ñam suñ leen joxut itam ñu koy defal seen bopp loolu moo gën a mat a saafara te loolu daganut ki laaj bu am solo la laaj bu aju itam ci mawduu bi muy yooyu mu lim ne medd mi nga xam ne day dagan yax baag béjjën baag dunq yaag ba mu jeex ci noonu mu ko limee mu ne ndax loolu day yem rek ci yi nga xam ne dafa dagan ñu koy lekk wala yiñ daganut ñi di koy lekk itam daf ciy dugg yim dagan ñu koy lekk ak yim daganul ñu koy lekk yépp ñoo ciy dugg lu dul ñaar yi ci borom xam-xam yi settee ci loolu muy xaj ak mbaam xuux ñaar yooyu moom nañ leen wattandiku ak lépp loo xam ne dafa jóge ci ñoom wallahu taala alam waaw kii moom ñetti laaj la laaj waaye yépp laaj nañ leen biñ daataan agsi ci kayitam bi wallahu alam laaj bu mujj bi dafa génn ci masala bi su fekkee am na ko am laaj bu jëm ci biir masala fiq yi ñu déglu ko ba noppi door a mujjee laaj bi nga xam ne jëmu ci xoolal koo jox rek baax na
salaamaaleykum wa rahmatullah docteur yal na yàlla yàggal suñu kanam wéral la dama doon laaj mooy am na yenn kii yenn kii kii yu nekk ci àll bi mooy rab yu nekk ci àll bi doomaay di ko lekk mooy lu mel ne tëll mooy Lu mel tëll yu ne?
nekk ci tëll til waaw waaw te ñuy- te muy lekk ëpp lu muy lekk béy yi ak lu mel ni sikkoor ak wele wele ak yooyu nga xam ne day lekk ay ginaar ak ñoom seen yooyu ak ngara est-ce que yooyu ngara mooy est-ce que yooyu dina bokk ci yu ñuy war a mën a lekkam déet salaamaaleykum alhamdulilah yooyu mu tib tudd muy till ak sikóor ak mboolem yi nga xam ne dañuy dund ci biir wel yi ak li ñu tuddee ngara defe naa mooy phocochère yooyu yépp doonut loo xam ne lu xaraama lekk la yooyu yu dagan la da nga gis ci biir téere fiq yi rawatina ci mazhabu malik ñi wax ne sib nañ lekk till lu tax ñu sib ko ñu ne jëmm ji dafa nuroog xaj maanaam jëmmi till ak jëmmi xaj dafa nuroo ñu ne kon bu araamul comme ni xaj araame it ñi sib ko pour wattandiku xam nga ne ngirum imam malik dafa bokk ci ay cosaanam ay usulam baas yi nga xam ne ci la tegu wattandiku li ñu tuddee ixtiyaat ñu ne daal pour wattandiku ak ragal a tàbbi ci lu xaraam daal till moom nañ ko sib waaye nag taxul nag mu am dalil boo xam ne day génne till ca loolu ludul su fekkee dañ koo delloo ci sibaax yi nga xam ne dañoo am li ñu tudde naab muy sell ndax kooku sax na ci xadis ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tere na ku lekk bépp ndegmeent bu ñu waxee ndegmeent mooy rab woo xam ne daa nekk ci àll bi di fàdd di fàdd yeneeni rab kullu di naabin bépp boroomu sell boroomub sell mooy bëñ bu sew buy mat te bokk ci sibaax yi ci ndegment yi su fekkee daal sell bi daje na ca ak ne day fàdde kon kooku moom xadis bi da koy jël léegi nag daa am ci boroom xam-xam yi nga xam ne sib lañu wax ñu ne till amul ab sell waaye li gën a wér nag am na ko boroomub sell la moo tax kooku li gën a wér moom mooy génne ko ci yi nga xam ne dafa xa- dafa dagan ndax dafa am sell te day fàdde kon sikkoor yaa ak xeet yi ca des ak yi nekk ci biir kii bi yooyu moom mënees na leen dugal ci li nga xam ne lu dagan la ndax du fàdd ak jur du def yu mel noonu bu dee euh, ngara defe naa mooy phocochère kook waaw mooy mbaam àll moom la ñuy wax ngara dafa am ñaari façon am na ci boo xam ne mooy mbaam mi yor rëdd yi couleur yu rafet yooyu boobu moom dagan na waaw mooy zèbre kooku moom dagan na bu dee phocochère nag beneen façon la boo xam ne euh, àggul ci mbaam moom la ñu tuddee ngara tolluwul ne mbaam waaye borom bëñ yu gudd la nag waaye bëñ yooyu li muy gudd gudd moom du fàdd dara xam naa daal mbay moom mën na koo yàq bu ñëwoon ci gerte mën naa sulli la nga suuloon lépp lekk ko wala mu sax ba meññi mu ñëw sulli ko lekk gerte ga wala mu lekk ñàmbi ja wala yu mel noonu bu noppee daw dem yoonam kooku eh, ci yi dagana lekk ci la bokk wallahu a'lam golo moom eh, ci ijmaawu boroom xam-xam yi donte gisaluñ ko dalil waaye ñoom ijmaa nañ ne dis ko lekk maanaam ibnul muntir bokk na ci yim nettali ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne diisu ko lekk mooy golo léegi nag xëy da nuroo géeg nit wala allahu alam lu tax ñu bañ koo lekk ak itam lu bari ci boroom xam-xam yi dañuy wax ne weneen xeet lañ woon boo xam ne ay doomu aadama lañu woon ñi alag leen ñu wëlbatiku soppiku golo safaanub li Darwin di wax ne nit ci boppam moo jóge ci golo ñoom lenn ci boroom xam-xami tafsiir yi dañuy wax ne yenn xeet yu tooñoon yàlla ñoom lañ alak ñoom ñu wëlbatiku nekk golo koonu qiradatan xaasiin jooju ñëw ci suratul baqara borom bi tabaraka wa taala daf le nekk leen ay golo soppi leen ay golo ñu ne kon aw nit lañ woon wallahu aalam ala kulli xaal bañ koo lekk moom mooy almutamad
salaamaaleykum wa rahmatullah
salaam wa rahmatullah
laaj bi fi rottoon cheikh bi benn sëñ daara moo fi téléphoné ci suba di laaj ma ne ko woon bu dars bu ñëwee dinañ ko laaj incha allah mu ne dafa yor daara koñ bi am ci koo xam ne dafa gaañu ci ñamu dëj bi daal ñu jékki-jékki indil ci daara ji lu bëree bëri muy laaj ñam woowu moom ndax dagan na ci moom ak dongoom wala déet mu ne dafa yor daara dëj xew ci koñ bi ku dee ñu koy saraxal daal léegi ni mu ne ñu jékki-jékki indil ci daara ji lu bëree bëri muy laaj ñam woowu ndax dagan na ci moom ak ay dongoom wala déet
ala kulli xaal lu aju ci sarax yi ñuy def ak xew-xew yi nga xam ne dafay tàbbi ci biddaa ndax soxut su fekkee ne lañu cay rendi dañ koy rendi pour nit ñi lekk ko ndax dañ faa dajaloo ñu di leen toggal luñ lekk jëmmi lay xew taxul mu xaraamal ñam wi daganoon su boobaa kiñ tibb ca ñam ba yut ko te moom bokkul ca biddaa ba yoonam nekku ca ak lekkam ko kooku lor nekku ci li ñu bañ daal mooy yow mi xam ne lii biddaa la yow moom bul ko def waaye nag ay nit dajaloo nañ fi béréb ñu ne tey la juróom-ñetti fan yi wala tey la ñetti fan yi wala yu mel noonu ñi togg ngir ne mbooloo ma dañ faa bari ñu toggal leen luñ lekk ñu jël ci yut waa daara ja su fekkee soxla nañ ko su boobaa suñ ko lekkee dara nekku ci wuute na nag ak li ñenn di def mooy nisaral ab xabru nisar nga ne lii dañ ko fee bàyyi pour rendil ko boroom xabru bi kooku suñ ko rendee moom musiba la kenn mënu koo lekk te ki ko def ci boppam shirk la def su boobaa kon loolu faaw ñi xàmmee ko wallahu taala alam asalaamaaleykum aleykum salaam jasallahu anna al cheikh dama doon laaj gox yi nga xam ni amul canalisation amul ndax amul canalisation Waaw.
maanaam foos yi dañ leen di gas noonu rek ci suuf ndax pompe yañ fay def ndox mooma dina dagana jëfandikoo ci jàpp wala la ndax ndox m- pompe yañu fay def teen yi
pompe wala ay teen yi ñu fay def muy génn ndox ndax ndox moom mën nañ ko jëfandikoo Hmm.
alhamdulilah kooku laaj bu am solo te it aju na ci bind bi ndax euh, béréb yi nga xam ne ay fosse septique moo fay nekk mooy fosse yi nga xam ne assainissement agsi wu fa ñu koy gasal ay fosse euh, teen yi ñuy def ci koñ boobu nit ñi ndax buñ ca rootee day sobewu wala du sobewu ala kulli xaal li gën mooy ab teen buñ koy gas na sori na sori foo xam ne ab fosse dafa nekk waxuñu ko ci kaw ne ndax mën naa jàpp ak mënta jàpp waaye même ci wér gi yaramu doomu aadama yi ci boppam war nañoo wattandiku lay seebe foofa di ñëw bay agsi ci ndoxum teen bi donte nag loolu nit ñi dañ koy wax waaye du lu yomb doonul lu yomb ndax teen ba ngay gas mu nekk fële ronuwul fosse bi te fosse bi bu amee lu cay senne suuf la jëm waaye jëmul ci côté yi loolu faaw ñu xam ko du senn jëm ci côté waaye day senn jëm suuf li ñuy ragal nag xëy na mooy mën nañoo dem di suufe di suufe ba mën a daje ca biir teen ba xóot xóotaay boo xam ne mën naa jege si foofu la seeb mën caa dem wala yu mel noonu loolu la ñuy ragal mais sori gi moom moo war a mën a am mais ala kulli xaal teen bi nga xam ne dañ koo gas ba jot ndox mi ne ci suuf moom ndox mi ci suuf ñi koy génne muy ball ña di ca jàpp loola moom dara nekku ci ala kulli xaal dara nekku ci Euh, bul fàtte ne bi biiru budaa ci madina euh, saxaaba yi fa lañ daan jëlee ndox di ca root ñi di ca sànni sax ay médd di ca sànni sax yu yu salte yoo xam ne xawee su ko mën a tudd ñi ñëw laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw biiru budaa bi moom ndax mënees na ci jàpp mu ne leen daal ndox bu xasee mat xulla tey ni mooy ñaari xulla ñaari mbuuka yooyu ma doon wax léegi mu ne leen su boobaa moom sobe sa mënatu caa jeexiital kon ndoxum teen mi ci boppam loolu mënu cee jeexital ci wàllu li ngay jàppe ak li ngay sangoo waaye nag nit ki bàyyi ko xel ngir wér gi yaramam bala muy naan mën a nekk loo xam ne lu sell la kooku lañ ciy waxe man li may laaj man mii la daloon sax waaye lu xaw a yàgg la it mais boobu ba léegi daal dañu sama xel mi. muy ne dañ doon julli timis bin demee ba ca rakk bu mujj ba ca sujjóot ci ñaari sujjóot yi imam bi siggi waxut ndax dégguñu ko. bi mu siggee ñun ñu ngi ca sujjóot gi di ko xaar mu siggaat siggiwaat sunu kaw ñu dégg siggi boobu bi ñu ko déggee ñu siggi ànd ak moom.
fekk bin doon yéen a yéen a ngi sujjóot rek ñun ñu ngi sujjóot rek di ko xaar bin siggee ñu xam ne moom mii ci taaya la ne ñun ñu sujjóotal sunu bopp ba pare siggiwaat ñun tamit. biñ siggee xaar nga bu taaya ba pare ñu sëlmal ban ci jógee nag man moom damaa julliwaat loolu moo gën a dal sama xel jamono jooje mais teewut nag ba tey julli gi dafa des sama xel
waaw ala kulli xaal yow li nga def moom ginnaaw dangaa sëlmal julliwaat loolu moom ixtiyaat la maanaam sikk sàkk nga ci dara nga def la nga xam ne yaqiin la muy da ma yaribuka ila ma la yaribuk waaye nag noonee ngeen def noona la ginnaaw dangaa sujjóot imaam sujjóot na ba siggi ba sujjóotaat ba toog di taaye te yëgoo ko nga yëkkati door a xam ne mi ngi taaye nga dese benn sujjóot sa sujjóot boobu da nga ko war a daal di sujjóot door a dikk ànd ak moom taaye bu sëlmalee nga sëlmal te dara du la war ci loolu na ngeen defoon noona la waaye nag ginnaaw sikki sàkk nga julliwaat kooku ba tey ba tey lu baax la wallahu a'lam
salaamaaleykum cheikh bi may laaj ci dars bi ci ci tënk bi mu tënk ci wàllu ndox bi taqsim bi ñetti yoon ñetti taqsim yi mu def ñetti ndox yi waaw te am na ñoo xamante dañu wax ni ñaari rek la ñuy tënk mooy imaam mu nekk bu laab wala mu nekk najaas waaw foofu la ñuy leerlu foofu incha allah loolu mu wax dëgg la am na ay boroom xam-xam yoo xam ne dañ ne ndox mi benn mu nekk ndox mu laab wala ndox mu sobewu dëgg la ndox mi benn mu nekk mu laab wala mu sobe waaye ndox mu laab ci boppam moo nekk ñaari xaaj moom benn bi mooy boo xam ne dafa laab mutlaqan ci lu dul benn charte mooy almaaul mutlaq beneen bi ci des dafa laab ba noppi léeg-léeg mu laabal léeg-léeg du laabal kañ la dul laabal mooy suñ demee ba nga xam ne la ca jaxasoo not na ko ba yoratul turu ndox ndax jàpp ma ne am na benn boroom xam-xam bu lay wax ne am sebet mën nañ cee jàpp wala póot it mën nañ cee jàpp wala mu lay wax ne ah wala wala wala jus jus bu bu bu orange wala buy wala bisaab wala yu mel noonu mu ne la mënees na cee jàpp loolu benn boroom xam-xam waxut loolu ànd ak ne lu laab la kon su demee ba yoratul tur woowa daal yoratul turu ndox su boobaa kenn mënatu koo jëfandikoo ci wàllu ci wàllu njàpp su desul ci waxtu wi lu bari ñu ñu daaneele laaj bii kon boroom laaj bi def ne limaada alsaudiya tadribu alyaman walam tadhab li taxrir alquds nee na lan moo tax Arabie saoudite di bombarde yaman te demul xeexi pour delloo si quds ala kulli xaal benn laaj boobu xam naa ku demoon ba ca ambassade ba nga laaj leen ko foofa lay gën a fa lay gën a amee place waaye bu dee nag kuy analyser rek ci liy xew dañuy wax ne yaman la fa xew man jàpp naa ne moo yées sax li xew Quds xoola benn kuréel boo xam ne ay rafida lañ ñoo xam ne turu jullit lañ wax ne moom lañ yor de waaye gëm nañ ne alxuraan bi nga yor dafa manqué guddeeg bëccëg ci saxaab saaga saxaaba yi ak soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ nekk lépp loo xam ne loo gëmoon yow jullit muy pas-pas loola ñoom dañ koy màbb gëm itam dem ba jëmmi jamono ñuy déclarer ne ñoom nguuru furs ga amoon muy perse yi na leen lislaam daaneele woon bu njëkk dañoo war a dellusiwaat ñoom pour daaneel arab yi parce que mënuñoo wax lislaam kon jullit yépp dal ci seen kaw waaye ñu ne ginnaaw arab yi dañ leen a daaneeloon ci jamono yu Omar ibn Khattab ñoom dañoo war a dellusi pour daaneel leen am réew nekk ca gannaaw làqu di leen financer ñu ñëw daaneelu gouvernement dàq njiitul réew la fa nekkoon nangu armée ba di def seen déclaration yoo xam ne comme ça wara seen déclaration bu mujj biñ mujj a def dañoo wax ne léegi te te lii ma lay wax ni du du du du du yamane yi nga xam ne ay chiite lañ yu nekk Iran ñoo koy wax mais Iran ci boppam seeni njiit ñoo koy wax ñoo ne nun daaneel nan ñeenti capital yi réewi arab léegi nag li nu dese mooy riyaat lañ jëm maanaam fas yéene daaneeli arabi saoudite dem màkk nangu ko ci seeni loxo su ko defee ahlu sunna ci kaw suuf moom dañuy dañuy féeteeg leneen waaye euh, fu ñu wéeru moom wala fu ñuy dem di aji wala yu mel noonu moom dootuñu ko am kooku moom mooy li wér kon nag foofu àggoon nañ ci toog di seetaan mënatul woon a nekk maanaam ñii dañoo dem ba am ku leen menacé ne ci sa kaw laa jëm te it lu dëgër la loo xam ne ñooñu liñ leen joxoon ci ay ngànnaay kenn xamul nu mu toll doy na ci sëkk nga xam ne juróomi fan a ngi ñuy bombardé ay ay place yi ngànnaay kese ba léegi jeexagut beneen ba ca des mooy njiitul réewum yaman ci boppam ki nga xam ne bañ defee seeni élection moom lañ tànnoon moom ci boppam moo woote ak wallu ne kaay leen dimbali ma Arabie saoudite ak ñoom àndal ñëpp ñu àndandoo dem dimbali jugo ci ndax dimbal loolu dimbali seen bopp la loolu ci wàllu analyse jàpp naa ne loolu mooy li xew ba tax cong moomu daal di am fi saa si kenn ku nekk nag mën ngaa am sa jàngatiinu bopp waaye man noonu laa ko jàngate te it moo dëppoo ak li nga xam ne mooy li sax ci xabaar yi ak ci doxalinu ñooñu ci kaw suuf wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور